mi ngi laajte lan mooy illa maanaam li nga xam ne nii moo dox diggante la tax ñuy julli jullik ajjuma jexran maanaam ñu di ko dégg ñëpp julli gi nga xam ne nii mooy tisbaar ak tàkkusaar duñ ko julli dañ ko béral lan moo tax muy laaj itam mbirum armeel yi nga xam ne nii ni léegi dañ koy tabax di ko kaweel ndax daggat na ci sharia wala déet julli aljuma ak julli tisbar xam ngeen ni julli aljuma mo remplacer julli tisbar bo julle aljuma do julli tisbar xam ngeen ni nag julli mom yal ak yalu ak duru mo ci am yalu ñi ngi koy def ci gep julli go xamne gis na jant bi wala mu gis jeexiti jant bi niki suba ak timis tisbar tak sa bépp julli go xamne guddile muy gee dañ koy biral suba gisul jant bi dañ koy biral timis noonu tisbaar ak takkusaan ñooy gis jant bi ñoom la ñuy yelu ulamaa yi am ci wuute ndax ñoom dañu ne lépp loo xam ne sharia digle na ko te xamuñu illa bi ñu tudde ko taabut maanaam dañ koy def rek ngir topp ndigal jaamu yàlla waaye xamuñu lu tax xam ngeen ne sharia danay yoonal loo xam ne doomu aadama yi duñ xam lu ko waral ba ñu toog junni at benn science découvrir ko wala nitu yàlla borom basira xam la ko waral am na ci yoo xam ne doomu aadama yi duñ ko xam ba mukk ba basaa di taxaw ludul ñu dem ba àgg ci yàlla foo xam ne dañuy am lakk akbar bu ñu amee alfatxul bar dañuy gis lépp xam lépp man lépp ci mbirum sharia dañuy xam illa yi al usuli yoone yi euh, ilmul usul usulul fiq mooy jàng di jàngle fiq atte yi yi nga xam ne dañ koo xiyaas wala yi nga xam ne ijmaa la jógewul ci alquran jógewul ci hadis nga xam ne dañ koo ulama yi dañ koo gisul ci arfan gisuñu ko ci hadis ñu nirale ko ci niñ xamee xelum lislaam ak la mu bëgg ak la mu bañ ñu seet ko nii ba ne kon dafa lii dafa war a dagan wala dafa war a araam wala dañ ko war a sib ilmul usul mooy toppatoo yooyu moo lay xamal illa ak sabab ak yooyu yëpp ak àtte xokk mu yooyu moo la koy xamal léegi usul yu ne fuqahaw yi xamuñu lu indi yelu ak biral usul yu ne yi xamuñu lu indi yelu ak biral rabbaani yoone yi gis ne am na ci mbirum euh, julli ay secret yoo xam ne suñ borom xamalu ko jaam yi ñu gis ne buñ seetee ne ni ma waxee woon sànq ne dundu nit ki ak sharia suñu borom def ko aj ci adduna bi ak yi lëkkuk adduna muy jant bi muy weer bi nga xam ne ci jant bi la julleem yi aju weer yi ci la yi muy def yu mel ne aj wala woor wala wori wala tabaski yëpp mu ngi aju ci yooyu nga xam ne sharia mu ngi mel na rek dañ koo tëralee adduna ñaari doom nga ciy jël suba lii mën na la booy tëdd nga koy jël lii mën na leen booy lekk wala boo lekkee ba noppi wala lii mën na la soo toogee naa ngi muy fan nga xam ne médecin bi kon élément yi nga xam ne composé comprimé bi wala si sirop bi wala ampoule bi xam élément bi ni muy jëfe ci organisme nit ki xam organisme nit ki état bi muy toll ci waxtu wu lekkee ba noppi wala waxtu wuy bëgg a wala waxtu wuy bëgg nelaw loolu yépp mu bàyyi ci xel ñu dank comprimé bi nga xam ne wax wi mu ko waree def jël bu ko jëlee dana jëf nii ci moom ndax organisme bi daf koy fekk ci état sangam deretam daf koy fekk ci état sangam mu war a combattre kon euh, microbe bi ba war koo rey ci secret jullikat bi ñu ne ko bu jant bi jeng ko na nga julli ñeent rakkaay yoo xam ne da koy yelu sëlmal bu jant bi demee ba nga xam ne léegi mu ngi ci diggante digg bëccëg ak jant bu so nga julli ñeenti rakka da koy yelu bu sooyee nga julli ñetti rakka yoo xam ne da koy biral demee ba teg ci lu a mat waxtu à nga julli ñeenti rakka yoo xam ne da koy biral bu subaa ñaar rakka bu jant bi ba ba jant bi nga xam ne boo kabaree boo sëlmalee rek ñaar rakka yi janloog jant bi ñun la foofu la yem waaye bu fekkee ne boo kabaree bala ngay julli ñaar rakkaay jant bi fenk kon julli woo ci waxtu waxtu wa jeex na booba da ngay waroon a yéene fay yéene woo jox ñun nag buñ demee ci yaam noonu ko médecin bi gisee ak pharmacien bi ak éléments yi ni muy jëfe ci organisme buñ demee ci ruux ci ni yàlla bind nit dott ko ci suuf si muy dund dund suuf si sharia a ñëw jaarale ko ci mbiri adduna bi suuf si ak yi ko tiim